salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum gars yi abonné leen ci général Kapo Boss ngeen xaar live bi Lému TV yokk na léegi 30 vidéo la ñu ngi may gën a envoyé couteau ci lëf paaka ci lëf paaka pour dagg supéme la ak jën dagg carotte ah saako soble xolli pomme xolli soble paaka du pour lëf nan nga mën a jëlee sa paaka di ko dugal ci data boo feesee sa data bi sa buddi sa buddi ñu rugaar yëpp këpp yéenay doomu xaraam te ñëpp seen ndey la motifu sali maa ngi ñëw kat seen ndey bu baax a baax a baax xaar leen ma ci laay bi képp ku bëgg a gis la motif yi rek di ko gis tey ku may dëgg sa ndey nag bu ma kenn woonaan ma aadama jigéen dañ koy sutaan ñoom ñoo xàppi seen data bi dugal ci ay paakaaki fourchette publier seeni vidéo man maa ngi ba Allemagne dinaa rof seen data ndey paaka yooyu laay dugal seen defal ndey la tey xaar leen leen nelaw wasalaam